wa ridallahi alxaalid an jamiil muminin mawlaaya salli wa sallim daa'iman abadan ala xabibika xayril xalqi kullihimi mbokki jullit yi mbokki téléspectateur u Leral TV yi baaxoo dinu seetaan ci réew mi ak ci bitim réew bàkk boobu bu ngeen ko déggee di mawlaaya salli wa sallim daa'iman abadan ala xabibika xayril xalqi kullihim dafay wone ni ñoo ngi bàkk sang ñoo ngi bàkk koo xam ni moo tax lépp tax bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di koo xam ni topp ko njëriñ la di koo xam ni sopp ko texe la di koo xam ni roy ko jëriñu rek ñu fas yéene ci ànd ak yéen ci seen xasiidatul burda ñu gën ko miin burdatul madiix burdatul madiix ki ko bind di imaamul busayri imaam busayri di nitu yàlla bu mag boo xam ni yàlla barkeel na dundam waaye itam bi mu génnee àdduna ba wane ginnaaw yàlla barkeel na gannaawam ndax barkeel gannaawam googu tax na tey sunu maam Seydil Xaaji Malik si radiyallahu anhu ci mbaaxam ci yaatoom ci tabeem ak ci honnêteté intellectuelle mu daal di jël xasida bii nga xam ni naataangoom moo ko bind di imaamul Busayri mu toll ci 160 vers muy téeméeri bayit ak juróom benn fukk ba tax na loolu Seydil Hadji Malick def ngir metre en évidence li nga xam ni mooy téere bi imaamul busayri bind moo ne seydil xaaj malik si radiyallahu bind na téere buy wax ci yenent bi sallallahu alayhi wa ñu miinee ko ci xilaasu zahab fi siirati xayril arab muy téere boo xam ni def ko bind ci histoire yonent bi sallallahu wa sallam moo ne Seydil Xaaji Malik ci radiyallahu ci mbaaxam mënoon naa jël téereem ñu di ko gàmmoo ñu di ko jàng ci burdu yi waaye dafa tànn xasida imaamul busayri radiyallahu wa ardaahu wa anna bihi amin mu ne bu gàmm weeru gàmm teroote nañu koy jàng ci njëlbeenu bunt maanaam fukkeeli fan yi moo tax fukkeeli fan yooyu xasiida bi ñu bëgg firi ànd ci ak yéen xasiida bi fukki bunt la bunt bu nekk dinañ ci ñëw ak yéen ngeen koy am en exclusivité ci seen tele Leral TV leeral FM xasida burda moom mooy lan ndax wax naa leen Seydi El Hadji Malick Sy lan moo tax mu nëbb téeréem nga xam ni 1052 bayit la muy alfiya imam Busayri bosam nekk 160 Seydi El Hadji Malick nëbb 1052 am génnee 160 bu imam Busayri kon loo ci jànge mooy boroom xam-xam dëgg mooy ki nga xam ni nangul na ay moroomi boroomi xam-xamam seen xam-xam waaye imaam Busayri radiyallahu anhu li waral mu bind téere bi ñuy wax burda dafa am feebar bu ko gane si woon feebar bi ko dal ñu gën ko miin ci suñu jamono muy feebaru làggi feebaru làggi boobu moom la ñuy wax AVC ci suñu jamono bi mu ko dalee ba yóbbu benn côté gauche bi nga xam ne cër yi mënatul woon bouger ca la daal di xalaat rek jël xalimaam comme yàlla mayoon na ko il était un grand poète il était un prosodite aussi waaye mu bind poème bu rafet jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wa ginnaaw bi nga xamee ni dem na ci médecin yi wu jamono ñu ne ko yow sa feebar bi mënut a wér imam Busayri comme nee nañ ko sa feebar bi c'est une maladie incurable tu ne peux mu daldi ne nag xaaral ma dem ci ki nga xam ni mooy docteuru baati di doktooru xol yi di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy tagg di ko tagg ba yegg ci benn bayit bu ñuy wax fa mablagu lilmi fiihi annahu basharun wa annahu xayru xalqillahi kullihim ba mu yeggee ci bayit boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko feeñu eggalil ko bayit ba ndax imaam Busayri dafa ne doy na rekk ci xam-xam nga ne bi nit la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko ne ko nit laa de waaye maa gën ci lépp lu yàlla bind kon imaam Busayri foofu la jaare wér wér googu mu wér nag moo tax xasida bi am na ñaari tur tuddee nañ ko buur da ndax ba mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gént yonent bi dafa summi mantoom solal ko ko moom imaam Busayri moo tax alburdatu manto lay firi ñeneen ñi ne tuddul burda dañ koy tuddee alburu buru moom mooy wér muy remède comme que dafa bindu xasida bi feebar bi ko daloon di feebaru AVC feebaru làg gi la ba mu jàng bindee xasida bi jaaree fa wér kon xasida bi ñaari tur yëpp boo ko ci tuddee recto verso la ñaari yëpp dañoo ànd benn bu ci nekk mën naa wutu moroom soo ko nee xasida bi manto tudd am na histoire bu fés buy firnde ni war nañ ko tuddee manto boo ko firee wér muy alburu le remède am na loo xam ni lu ko mën a firnde léegi imam Busayri lan la utiliser pour way ci yonent bi sallallahu wa sallam dafa utiliser li ñuy tuddee la poésie poésie moom mooy achiar bu ñuy wax achiar ci baatu chiar dafa am baat bu nekk ci biir chiar ñu mën ko ci génnee ci dérivé bi muy ashuur ashuur moom mooy lan mooy yëg-yëg la sensation moo tax ida lam fi chiari shuurun fa laysa bi chiari dañu wax ni bu fekkee ni danga way ak way bind poème boo xam ne nit ki mënu ci am benn sensation benn yëg-yëg ba mel ni yow danga ñëw ci biiram kon yow sa poésie dafa des waaye ci biir poésie arab dafa am ci laata imaamul Busayri di gëne àdduna ba ci li jiitu judd yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam arab yi dañu daan faral di utiliser li nga xamante ni moom mooy la poésie di ci jaarale seen communication comme tey ni mu ñëwee ci jamono muy intique muy nouvelle technologie de l'information kon ñoom seen information ñu ngi ko doon jàllale ci à travers la poésie ba nga xam ni demoon nañu ba arab yi amoon nañ marché poète le marché des poètes muy suuku occase moom la suñu mbokku murit yi euh, transformé seen marché yi di wax marché occas mais marché occas mooy suuku occase waaw ca Makka marché des poètes la woon dañ daan xool poème yi dàq ci poème yi gën a rafet moom lañ daan ñëw di ko exposé mu nekk sous forme de foire li ñuy tuddee foire des livres ci jamono réservé pour les poètes et les écrivains imaam léegi moom bu ñu xoolee ci wàllu poésie dina baax ñu jàngat ci yan façon poème poésie moom moo am mën nañ ci tënk lenn am na ci poésie lu ñuy tuddee shakwa daar ci style poétique la bokk muy les complaintes contre la fuite du temps mooy nii léegi léeg dina am ci poésie loo xam ni woykat bi dafay mel ni dafay woy jamono joo xam ne ju paase la mu di ko fàttaliku te loolu dina ñëw ci biir xasida bi dinañ ko ci gis waaye gis nañ ci biir xasida bi nii dinañ ci fekk li ñuy tuddee éloge éloge moom mooy tagg waaye dinañ ci fekk li ñuy tuddee alhijau ci genre poétique la bokk alhija moom mooy la satire muy le satirisme boo demee sax ci benn branche ci journalisme da ngay gis li ñuy wax le journal des journaux satiriques le satérisme muy ñoo xamante ni léegi-léegi dañuy mel ni euh, luy dé luy sabote yenn mbir waaye am na ci biir genre poétique ba léegi lu ñuy tuddee ar muy éloge funèbre comme tey ngay fàttaliku nit ku génn àdduna nga di ko way bu boobaa loolu la ñuy tuddee éloge funèbre mais ñu di ko wax ci littérature ñu gën ko miné ci baatu élégie kon élégie moom mooy di fàttaliku koo xam ne ku génn àdduna la ngay wax ay ay ay mbaaxam waaye ba léegi da ngay gis am na lu ñu tuddee al wasf ci genre poétique muy la description di décrire benn mbir moo xam nit la moo xam environnement bi nga xam ne ci nga nekk am tamit lu ñuy tuddee xazal xazal boobu nag muy poésie amoureuse moom la ñuy tàmbalee ci xasida bi nga xam ne moom mooy xasidatu Burda kon mbokk téléspectateurs yi ci en guise d'introduction genre poétique yi bari na mais dañ ciy yamandi foofu mu nekk benn introduction nga xam ni dafay dellu ci ñu wax la genre poétique yi parce que kii ci wàllu poésie moom la utiliser pour mën a tagg yenent bi sallallahu alayhi kon suñu première buntu dafay ñëw di jàngale fil xazali wa chakwal xaraam bunt bu njëkk bii ci burdu bi bu ñu nee xazal wax nañ ko léegi mooy poésie amoureuse chakwal xaraam mooy di tawat sa yëg-yëg sa cofeel envers sa soppi imam Busayri ni amin tadakkuri jiranin bi si salamin mazajta damaan jara min muqlatin bidami niñ ko daan fiire dañu daan wax naan amazajta ndax jaxas dangay jaxase damaan rongoñ jara boo xam ne mi ngi daw tukkee ko min muqulatin ci nagu bët maanaam liy ñuul ci sa bët yi bidamin bu jaxasoog deret lan moo waral rongoñ boo xam ni mi ngi sotteeku ba mel ni lu jaxasoog deret lenn moo ko waral ndax tazakkuri jiiraanin bi si salami xanaa fàttaliku bi ngay fàttaliku sa dëkkandoo ya nekk ca zi salam moo waral ngay sotti rongoñ ba rongoñ bi mel ni lu jaxaseeg deret am habati riixu wala ngelaw lay ëpp min tilqaa'i kaadimatin bàyyeekoo ci bërëb bi ñuy wax kaadima wa awmada wala liy xuuy éclat bi génn albarqu melax bi fi zalmaa ci lëndëm min idami bàyyeekoo ca idam ah ne ko nag ginnaaw bi mu posé question boobu mu mel ni imam Busayri yi dafa xaaj jëmmam def ko ñaar benn jëmm bi taxaw di waxanteeg jëmm ji di ko posé ay question ñu xool tey ñoom seen dialogue ñoom ñaar naka la demee mu ne famali maa li ay nekk benn jëmm bi xam nga Seyna Cheikh nga gis ndeysaan benn nit bu taxaw di wax ak jëmmam xam nga léeg dafay dal nit nga toog di wax ak sa bopp yow <laughs> des fois mu dal nit nit toog di wax ak boppam mooy jékki-jékki nga nekk nit ku jékki-jékki am loo fàtte ba mu yàgg rek ñu naan waaye man man maa man ko ngeen baal ñu ci baat bi waaw ah, man man naka laa mën a nàngam fekk yow yaa ngi wax ak sa bopp <laughs> moo tax mu ne famaali ay nekk ana lu waral sa ñaari bët yi in qulta soo leen waxee ni leen ukk fu faa bàyyi leen jooy yi xamataa ñu continuer di jooy wama li qalbika mu ne ko ana moo tax sa xol bi in qulta soo ko waxee ne ko uk eh, istafiq dalal yéhi mi mu continuer di gëlëm rek di palpiter bu Busiri dafa mel ni day wax ak boppam parce que dafa toog di jooy kan lay jooy soppeem lay jooy mi ngi jooy soppe bi bët rongoñ yi soo ko gisee dafay xonk ba mel ni deret mu ne ko ndax sa cofeel bi nga ëmbal sa soppe bi moo waral loolu walla ngelaw li nga xam ni fa muy ëppee xam nga ndeysaan cofeel du jàmm Cheikh dinga gis nit sopp nit ba tey bu ñu waxee dëkk bi nit ka dëkk rek xelam jëm ci bi bu ngelaw li ëppee jóge foofu rek mu ne ngelaw lii de dëkk sama soppe ba la jóge bu fekkee nit xetu parfum la miinoon di xeeñtu xetu parfum boobu bu ko keneen tuuroo rek xel ma dafay dellu ci moo tax mu mel ni beneen jëmm bi nekk ci imam Busiri mooy tontuwaat naan ko ayaxsabu sabbu xanaa da yaakaar ni aji soppi ji annal xubba naka ne sa cofeel gi mun kati mun mën nga koo nëbb maa bay na mun saji mi noo koy nëbbee fekk ni sa diggante ñaari bët yi mi ngi génne ay rongoñ wa mudu tari min sa xol bi mi ngi tàkk ndax ki nga sopp mu ne ko lawlal hawa waaye bu dul woon ak cofeel lam turiq doo tuur dama an rongoñ ala talalin di fàttaliku ay gent gent moom mooy dëkk bu ñu dëkkoon bu mu yàgg ñu toxu comme nomades ni ñuy def bàyyi fa dëkk ba bu ñu fa bàyyee dëkk ba mooy les campements nga xamante ni dafay am ay dammitu ndaal yu fay des ay dammitu satalaak maanaam yenn stanzul bagage yu sew sewaan yi fay des loolu la ñuy tuddee campement nga xam ni boo fa jaaree da nga naan ah fii de dëkk la woon waaye dëkk ba daa mujjee gent nit ña toxu nañ soit li tax mu gent xëy na ñàkk ndox la wala ñàkk am sécurité moom moo tax mu jóge foofu moo tax mu ne ko law lal hawa bu dul woon cofeel lam turik doo tuur mukk dama an rongoñ ala talalin di xalaat gent ya wala arixtata doo toog di veye ñàkk nelaw li zikril yi di fàttaliku garabu baan ya wala alami ak fàttaliku montagne alam ya dañ ne baan garab la boo xam ni dafa mel ni baan bi garabu retrouvaille la woon des amoureux alam bi nekk tamit montagne des retrouvailles des amoureux <laughs> moo tax mu ne ko bu dul woon cofeel doo toog di xalaat garabu baan xam nga dafa mel ni benn jardin jardin public foo xamante ni ñi soppante dañ fay faral di daje ñu naan ko le jardin des amoureux donc montagne bi tamit dafa mel ni loolu la mu ne ko bu dul woon sa cofeel doo toog di xalaat garabu bànni wala ngay xalaat montagne maalam ya mu ne waaye wala waaw aarat ka saw bay abratin wadanan hmm? moo tax mu ne mislal bahaari ala xaddayka wal anami ndeysaan ah, mu ne fa kayfa tunkiru naka ngay contesté xubban cofeel boo xam ni baadama shahidat ginnaaw bi nga xamee ni seede na mu ne ko lan moo ko seede alayka ci yow udulu dam'i ay sotteeku rongoñ yu wëy maandu sax xam nga léegi-léegi ndeysaan nit dina jooy ndax mbëggeel fekk jooy ba nekk jooyu ngistal waaye léeg-léegi nit dina jooy jooyu mbëggeel nga xam ni jooy yi jooyu dëgg la ci moom loolu mooy udulu dam'i way maandu rongoñ wa saqami waaye li koy firndeel mooy sa yaram baa ngi ràgg dem ngay dem bay jeex mooy li ñu naan dafa bëgg bay misère ba jeex tàkk jeex tàkk googu mu jeex tàkk nee na ko kon yow mënoo contester ni yow maanaam dafa mel ni rek ki bëgg nit di sagu ñu koy naan yow da nga bëgg di mu naan ah man bëgguma ko <laughs> fekk intérieurement ndeysaan dafa bëgg moo tax mu naan ñu ne ko mu ne ko yow noo mën a contesté mbëggeel boo xam ni déjà sa rongoñ yi mu ngi tuuru rek te rongoñ yu sincère la nag mu ne ko waaye sa ragg gi ku la xool ak sa jeexaat bi xam ne am na koo sopp mu ne waaye wa asbatal wajdu nee na saxal al wajdu njàqare gi lan la saxal xatta awratin ñaari rëdd rongoñ yi wadd waddanan ak feebaru songoŋ boo xam ne daf lay jeexal takk mislal bahaari mu dem ba def ay trace ba mel ni comme gàncaxu bahaar di zone trace yi mooy ki nga xam ne dafa jooy jooy yu metti dem ba jooy fer te sëlmuwul nga gis trace yi ni muy nekkee ci ci jou yi ci lex yi wala anam yi ak gàncaxu anam mu dem ba jóge ci jaunâtre jëm ci rougeâtre xam naa cheikh yaa ngi naan ma waaw oustaz moom ban ban ban ban ban ban ban ban soppe lay wax ak ban ban soxna lay waxal nii <laughs> ndeysaan lii la ñuy tuddee xasal imam Busayri yi nag bu yeggee ci ki muy tagg si ngay soog a xam ne ndekete ki muy fàttaliku yëpp bu sa xel dem ci ne kon coroom sa rek lay wax am na ku muy wër da koy seet am na ku muy seet mu ne ko am mu ne ko waaw léegi sax waaw sara rañaan na tayfu man ahwa imagination wu ki ma sopp fa arraqani mu ñàkkloo ma nelaw maanaam mel ni ki nga xam ni yaa ngi koy yàgg di koy wax naa ko non da bëgg danga bëgg mu ne waa léegi maa tey waa léegi damaa bëgg léegi ki ma bëgg moo ma tere nelaw moo ma occupé waaw je suis éperdument amoureux fa arraqani mais cet amour m'a empêché de dormir mooy fa arraqani waaye wal xubbu yaxtaridu laddaati bil alam mu ne waaye mbëggeel dafay dem ba day mujj transformé sax nekk ay métit yàlla imi mu ne yow mi may yedd fil hawal uzri yi ci cofeel gu tar bañ di ma askanalee waa uzra xam nga cheikh waa uzra benn xeet lañu woon boo xam ne buñ la xasee ba bëgg dañuy dee rek mais duñ la bàyyi ñu dem ba ñépp askana leen ne leen ñi ñoo dàq bëgg ci àdduna muy bani Uzra lu ñu xës ba sopp dee rek kay tax ñu bàyyi ko mu ne waaw yeneen may askana leen naan man dama bëgg ba mel ni waa bani Uzra mu ne waaw min ni ilayka wala am safta lam talumi mu ne waay boo maandu woon di ma bàyyi de doo ma yedd adat ka xaaliya mu ne sama état d'amour sama état d'amour xaaliya la sirri bi mustatiri léegi sax ce n'est plus à cacher ce plus à dissimuler nekkatul lu ñuy nëbb anil wuchaati mu ne rambaaj yi sax <laughs> xam nañu ne je suis éperdument amoureux hein de mon bien de la bien-aimée am na ku mu sopp daal yàlla imi fil hawal uzri yi madiratan minni walaw ansafta lam talum moo tax adat ka xaaliya la sirri bi mustatirin mu ne ko sama état d'amour nekkatul lu ñuy nëbb te daf la dépassé yow mi nga xam ne yaa may yedd ndax rambaaj yi nga xamante ni sax samay noonu lañu sax xam nañu ni wala daa i bi mun xasimin sama jàngoroy euh, maanaam feebaru cofeel gi ma dal feebar bi nekkul feebar buy dog waaw dama koy deewaale rek mu ne ma xattanin musha yaa ngi may sellale di ma laaye biir nee na ah maanaam yow yaa ngi ñëw Cheikh di jaay di di ma jaay sincérité di ma conseil <laughs> naan dangaa ñàkk fayda bàyyil ki nga sopp yaa ngi ko topp yaa ngi nangam yaa ngi nangam ndeysaan <laughs> ma jékki-jékki rek ne la Cheikh waaye da ngay sonn lastu asma wax li ngay wax yëpp duma ko dégg lu tax duma ko dégg innal muhibba xanaa xamoo ni aji sopp ji anil onzali ci ñi koy yedd daf koy gën a ràngati sax fii sama mi day tëx <laughs> waaw xam nga waaja <laughs> euh, majnunu Layla dafa sopp Layla ba nga xam ne mu jaraloon ko lu nekk nag ndeysaan waa ji ñëw di ko yedd ci laylaa mais saa bu waxee rek tudd Layla mu di ko déglu attentivement di ko déglu religieusement waa ji jaaxle ci concentration bi majnunu lay laa am mu wax wax wax wax wax ba daaneel mu ne ko dégg nga li ma la wax mu ne ko continuel waaye fi nga nekkoon neex na de mu ne ko te nan lay laa ji bari <laughs> ndekete li ko waa ji di yedd yëpp moom li ko intéressé ci li waa ji di wax yëpp di ko yedd moom nay dégg baatu laylaa bi kese <laughs> moo tax mu ne ah inni naka man de ndeysaan taxamtu tuumaal na nasiha shay bi waaw laay biiru béjjaaw waaw xam nga béjjaaw dem na ba ñëw sax di ma laay biir maanaam kon moom dafa sopp dem ba nekk màgget ba béjjaaw continué nanguwul bàyyi ko mu sopp mu ne ko ah was shay bu nag mu ne ko béjjaaw abaadu moo gën a sori anit nusxi fii nusxin anit tuhami ah mu ne ku dem ba bi jaaw di la fàttali ne yow léegi nga dee nga nekk fii continuer nan dangay am ko sopp ba di ko jooy mu ne ndegam man maa ñemee tuumaal bi jaaw mi may yedd waxuma laa keneen kuy taxaw sama kanam di ma yedd ndax sama soppe bi kon mbokk yi loolu mooy bunt bu njëkk bi ci euh, burdatul madih ñu ngi sant bu baax a baax di ñaanal mbokk yépp yi ñuy teewlu ci leeral TV ah di leen wax ne rek nii lañ koy jàppee ak yéen incha allah ci première euh, nuit ba jëm ci dixième bi ba ñu yegg ci gàmmu geeg jàmm incha allah lañ ci ànd ak yéen buntu par buntu fii ci seen télévision Leral TV waaye ci seen émission leeru burtu